waa ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi di sant suñ ñaari waajur di nga di sant li nga xam ne amuñu lu dul moom te fu dul fi amu ko muy si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñi ngi koy sant bu baax di ko jox wàcc wàccuwaayam di sant ki ko fi toogal mu seen Muntaxa Mbàkke Basir di ñaan yàlla mu yàgg fi ñu ànd kook moom ba lim naa la liggéeyal maamam ju tedd ji suñu borom bàyyi ko kàttan bi comme li nga wax nag euh, maa ngay déglu ci dégg ci réseaux sociaux yi ak internet yi ba tax na àdduna moom lépp la te loolu ku ko def boo xalaatee ni euh, milliards yi ngay jël dizaine de milliards ngay jël di ko def ci tenue élèves yi dëgg la nekkuñu ay parent parents d'élèves mais am nañ ci ay rak yoo xamante ni nii euh, ñu ngi ciy jàng wala ay mag wala ay sër yoo nga xamante ni nii ci école bi la nekk mais dafay am loo xamante ni nii lu baax la waaye baax fu ko gën fekk mu ànd gën fu mu fekk baax dafay àndu xajal mu toog ba tax na am na ñuy nekk ci ay abri provisoire yoo xamante ni nii fi ñuy jàngee ak nawet bi nii Eh, te ren école day ubbi ci nawet bi naam milliards yooyu boo ko jëloon defar leen ci ay classes eh, ay ay ay ay foo nga xamante ni nii wàññi seen abri provisoire yi ak yeneen eh, loo nga xamante ni dina leen motiver ñu gën a mën a jàng même ci enseignants yi nga xamante ne nii ñu ngi leen yoreel seen indemnité te fay ñu leen ko chaque jour ñu wax ko ci internet ci kii bi internet bi di ko kaas. bari na daal bari na loo nga xamante ni daal wax dëgg yàlla moo gën ñor ñuy jël tenue yi di ci def ay dizaine de milliards yooyu pour man. am na sens pour bokkale bi comme pour si côté boobu noonu wante boo dee xool am na leneen lu koy gën a nekk lu koy gën a am sens daal pour ñi nga xam ne si ne amuñu école yu ñu jàngee ñu jàppale leen ban am école yu ñu mën a jàngee ñi nga xam ne tamit fi ñuy jàngee day sori wutal leen ay école yoo xam ne mën a jege ci ñoom pour ñoom ñu fay mën di jàngee daal defe naa loolu moo gën a ëpp am importance pour nga wut ñëpp ñu am tëni si ñii di jàngee fa sori ñii di paas fa jege xam loolu tamit day xaw am lu muy nuru nuroo la tëni moom chance bi wul lu xañ na feneen furul si tani mom xañ na fenen fenen feneen furul si tani parce que bo dee xol Sénégal fiñ mu ni nii ngi yok dundu bi ci yaakaar naa Sénégal maam dundu dafa war a dafa war a yomb dal ci luma gis dund dafa wara gëna mëna yomb mais pa muy gëndi di ci si côté dundu lepp da fi da fi cher fi lo am dundu ngay dox fi lo am luyas ngay wax xam nga yooyu yëpp waroon mën a sensé ba nga xamni seen si ne yep da dafay xaw yomb su ko defé ñu wara mëna indi a yenen dal yenen yenen kom kom yu bokut ak yoy nonu heure yi waaw mais parce que ñun loolu ñu may xaaj parce que loolu benn benn un mois la buy jàll rek te benn un mois mënut a defar sa dund bi mënut a defar sa at bi waxuma la ak benn sa dund bi quoi parce que benn un mois la boo xam ne si ngay liggéey wala bu si mën nga ko ñëw sax si semaine xam nga kon loolu bu def dèjà mënul defar sa dund bi kon bu fekkee ñu bëgg a defar maanaam def promo pour ne tailleur rek loolu yeneen wax la quoi mais loolu mënul defar mënul may c'est comme événement moo mënul may tailleur xaalis waxuntuma la ak yenn blouse yoo xam ne da nga koy ñëw ni rek mu jàll xam nga waaw dëgg la xam nga tailleur moom ak surtout sénégalais moom xaalis yàlla moo dogal loolu te liggéey booy liggéey da ngay ñaan yàlla avancé te jii kuñ ci joxoon marché bi sax euh, naam mën nga bañ xalaat loolu waaye xam ni nag comme que ñun suñuy rakk la ñuy defal te suñuy rakk ñoom la ñuy ñawal te nii mais suñuy rakk tamit ñooy sonn ne ci abri provisoire yi di tawte di tooy affaire yooyu kon ki nga xamante ni nii lim nekkoon ba yàlla dogal mu ciy jàng di def euh, CI CP ba am entrant sixième ba yàlla nekk mu nekk université kooku nga utal ko lu gën lu gën fi mu nekkoon moo koy gënal nga ko jox ay téenéeg yooyu pour man bu ñuy gëmee seen bopp ñoo doon gëm seen bopp ñee dañuy jaar ci suuf dem jël jël jël sànce bi liggéey ko tourné di la sonale ki wax xam nga loolu ñun ñu gën a mën a sonal maam ñàkk booloo gi ñàkk a booloo loolu moo tax Sénégal pour mu avancer nii nii nii nii loolu mun gëmuma nekk parce que ñun booloowul bu ñuy jàppee jëm nee ñee dañuy jàpp jëm nee def naa loolu mënul avancer loolu réew bala moo mën a nit ñi dañoo mën a àndandoo di xàccandoo di dóorandoo bu dee lu baax bu dee lu bon ñëpp ñuy waxtaan si mais bu ñuy jaaree gauche ñuy jaar droite duñ mën a am lu sotti quoi parce que mbooloo moo nekk doole loo gis ñu ne mbooloo moo ko defar ànd nekk benn bu mu mënti doon rek ba si diine ba yëpp bu yëpp bu mbooloo nekk benn kenn a yab mais buñ mooy mooy mooy mujjëm réew te moo yorum réew te jeunesse dafa am doole ci population ci ci ci ndaw réew ba tax na dañ leen di encouragé di leen motiver pour ñu gën a góor liggéey jaamu yàlla parce que suñu borom daa bëgg ndaw luy jaamu yàlla waaye lu ko gënal nag mooy ndaw lu liggéey booleeg jaamu yàlla te yàlla dogal na ñun moom Sénégal lépp teranga la te àdduna demee noonu boo waxee ñu ne Sénégal teranga la kon daanaka bu ñu bëggee def teranga faaw ñu liggéey te moytu yoo nga xamante ni dafay bari te léegi àdduna bi dafay yàqu noonu la demee kon daal noonu laa gisee.